زيتون وإلى منام نعم. نفيرا دتير رسول جلوز هذه أقزة وإلى منام أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاد حتى أتاه اليقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين وبعض إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتبارك الله ginnaaw ba nu sante yàlla julli ci yonent yàlla muhammad ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di sant yàlla bu baax moom mu ñu may xéwal bu mag gi fa tabarakallahu di nuyu mbooleem soppe buy bége fa tabarakallahu Malick Mbaye TV waaye nag di jël bi ak ziyaar bi di ko jox rek sama soppe sama mag sama xarit xaaji Pape Malick mu jox ko mboolem soppeel waaye noonu la ñuy nuyoo di xaasal nuyoo ak ziyaara kilifa diine yi fa tabaarakallaahu ñoom ñi nga xam ne sikkiri àddina bi seen loxo la nekk bu nekkuloon ak ñoom konoon fa tabaarakallaahu kenn di tal di doxi ay soxlaam waaye rawatina fa tabaarakallaahu suñuy mbokki jullit yi ñi nga xam ne seen diine moo leen yitteel waaye tamit suba ak ngoon ñoo ngi dox fa tabaarakallaahu ngir lan di dundal alquran di dox ngir lan di tasaare alquran ci seeni jàng ak seeni jàngale tey nag fa tabaarakallaahu ñi bëgg ànd ak yéen sunu émission wu daara sunu émission daara fa tabaarakallaahu ku ne daara nag ne alquran ma bëgg ñëw ak yéen tuuti rek ci ngëneel li nga xam ne nekk na ci alquranul karim pour nit ñi jullit ñi fa tabaarakallaahu ñu delluwaat ci téere bi ndax soo duggee ci réseaux sociaux yi sa xol day tàng jooy sax di ko def ndax li nga xam ne ñi ngi koy fooyee téere yàlla bi di ko fooyee ñi nga xam ne dañoo sax di jàng téere sunu borom bi xaj pap ma lay wax benn secret te mooy yàlla téere yi nga xam ne moom la jëlee asamaan wàcc ko ci kaw suuf jox ko ay ndawam téere yi 104 téere la moo taxaw turam boobu ñuy tuddee samat 104 téere yi nag ba ko yàlla wàccee ci suuf téere bi jamono mën nay dox ba téere ba kenn dootul ko jàng waaye secret bi moom du fi jug yàlla dafa jël 104 téere yépp secret bi ndaxañ ko ci biir alquraanul yi jël téere bi jox ko yonent yàlla Muhammad yonent bi di jàngale ne yàlla jëlaat secret yooyu mu wàcc woon ci jëlee ko ci biir alquran dugal ko ci fatihatul kitab te loolu mooy sawagu julli bu taxaw di julli balaa sa julli di wér faaw nga jàng ci rakaa bu ne fatihatul kitab sunu borom ci coobareem ak ci manam jëlaat secret bi ci biir fatiha dugal ko ci biir bismillahi rahmaani rahim moo tax imaamu Shafii yi moom dafa d'accord ne mënoo jàng fatiha ci julli te doo jàng bismillahi rahmaani rahim mu jëlee ko ci biir bismillahi rahmaani rahim dugal ko ci tomb baax bi moo tax mënoo jàng alquran mukk te ubbeewoo ko bismillahi sunu borom wax ci hadisul qudsi yu ne fa bii kaana maa kaana wa bii yakunu maa yakunu wa maa huwa ne ci baa gii ngeen di commencé sama téere man yàlla si laa lépp lu am yow mii di déglu avant juddu ba keroog ngay toog tey jii lépp lu am yàlla ne ne sabab bi mu ngi jógee ci baaboobu waaye lépp lu nar a ami ba keroog yàlla di dekkil jaami di leen fay seen jëf lépp lu nar am ami secret bi yàlla ne mu ngi jógee ci baaboobu kon moo tax lépp rek fa tabaarakallaahu alquran su ko defee alquran boobu mag ñu nga gis ku ci woote te ginnaaw ba ñu génne àddina kenn xamul keñ la waaye ku si woote tey mu mel ni mu ngi dund seen barke yeeg seen gëneel yépp ñu ngi ko amee ci téere bi sunu borom wax benn aaya xam naa foofu la ñuy tënk sunu programme xaj baab yàlla daf ne inna alladina yatluuna kitaaballahi wa aqaamu salaata wa anfaqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaratan lan tabuura liyuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur sadaqallahu al-azim mu doon aaya boo xam ne suñ ko tegee ci pénc mi jàngat ko ñëpp dañ delluwaat ci téere yàlla suñu borom daf ne inna allazina ndaal gaa ñi nga xam ne waxul sax allazina te su waxoon allazina yatluuna ba léegi baax na waaye ibnu maal daf ne li inna am na layta laakinna laan ka am na ak sumaali kaana min am arab lépp lu muy wax pour bëgg nga xam ni wax ji lu dëggu la day jël kenn ci juróom-benn yi jiital ko ci wax ji moo tax yow tey soo doon wax ak sa mbokku tiijaan mhm. nga bëgg mu gëm ne yow li ngay wax dëgg la faaw nga ne ko barki sëñ Babacar Si mhm. fa tabaarakallaahu yàlla ne inna allazina yatluuna kitaaballaahi mhm. ndaal gaa yi nga xam ne dañuy sax di jàng téere yàlla bi xaj baab yàlla daf ne yatluuna kitaaballaahi te waxul inna allazina yaqra'uuna kitaaballaahi su waxul yaqruuna konoon yéeféer bu mas a jàng faatiha sa moom ci biir waaye comme yet luuna la wax ma ne aaya bi ñett ñoo ko bokk kenn ki mooy taalibe yi ñoom la yàlla njëkk a tudd ñaareel bi mooy sëriñu daara yi te mooy borom xam-xam yi ñetteel bi mooy ñi nga xam ne ñooy jël seeni alal di ko jàppalee taalibe yi déggal ñu firi aaya bi suñu borom di ne les ñee doon a kitaaba ñi nga xam ne dañuy jàng téere yàlla bi ma ne mooy taalibe quatre heures du matin la ñuy jël seen i téere di jàng ba jant fenk ñu doog a dem wuti lu ñu def seen biir mais suñ demee ña leen koy jox ñooñu ñooy ñetteelu état bi dinaa ci ñëw léegi incha allah yàlla na ñooñu ñu ne ah mu ne wa aqaamu salaat ak ñi nga xam ne daa iman dañuy taxawal julli muy jullikat yi kon ku dul julli bokkoo ci aayal mm-hmm. waaye xaj baab yëgoon ne sooy julli te xamoo ni ñuy jullee sa julli wérut mm-hmm. يالا لين فاعرفوني قبل ان تعبدوني فان لم تعرفوني فكيف تعبدوني سو داجيك نيت موني يعرفوني قبل ان يعبدوني فان لم يعرفوني فكيف يعبدوني بوكو ويت دا حاجه دي دا فا نيو نياري يون سو سو فيري سو جانغي فاعرفوني قبل ان يعبدوني كون بلاغا واخ فاعرفوني داغي واخ قل يالا داف لا يينتي قل وخال ني nii nañ ma xam xam la an yaabuduuni lu njëkk ñi may jaamu. Mhm. mais su dee ko gi nag kon taarifuuni ngay wax. Mhm. yàlla ne na ngeen ma xam balaa ngeen may jaamu soo leen ma xamul gi ngeen may jaamu soxlawuma ko. Mhm. ma ne nag kon aqaamu salaata la la aaya ba wax alquran wax ma ne aqaamu salaata mooy borom xam-xam yi muqaddima téere li ci téere yi ñuy njëkk a jàng ci daara ji. masala bii may wax di ko fekk nee nañ soo demee nga taxawal julli nga julli ba pare ñu laaj la faratee julli ñaata la nga ne xaw ma ko sunna julli ñaata la nga ne xaw ma ko nga nee li julli ñaata la ne xaw ma ko nee nañu sa julli googu baatil la kon yàlla ñi nga xam ne ñoom lay nangu seen julli mooy ñi nga xam ne xam nañu naka la ñuy julli kon wa aqaamu salaat mooy boroom xam-xam ba léegi day dellu ci alquran mm-hmm. wa anfaqu mimma razaqnaahum yalla ne ak ñi nga xamne ne dañuy dépenser sen alal dépenser lu leen yalla wërsegal sirran wa alaniyatan mais fu dafa fa taxaw pa dañuy gis ku dem jaay dor ba am ay milliards dem tabax ay jakka wala dem ubbi ay internat ay daar ñi ne mom kat mu ngi dimbali diine ji fof dedet dañu laaj imam Ghazali ne ko loo xam ci ko xamne ne dafa ut alal ci anam bu haram alquran nee na wa ahalla allahu bay'a wa harama riba suñu borom dafa daganal jaay mais riba moom dafa xaram yow na nga ut alal si anam ju leewul dem tabax ci jàkka ñu ne ko kooku noo koy àttee digganteem ak boromam mu ne yërmande yàlla yaatu na waaye am na ñoo xam ne xajuñ fa lu tax loolu mu ne ku yéreem am sobe sharia dane na nga dem ut ndox mu laat nga laabalee yére ba pour mu doog a mën ndax laa salaata li man laa tubra léegi nag ku yëreem am sobe mu bëgg a dem jël ndox moo xam ne sobe la pour laabalee ko yëre ba ndax yëre boobu dina man a julli yéen déedéet mu ne alal ju xaraam ku koy dépensé si yoonu yàlla moo ko ñoo ndax inna allaha tayyibun yuhibbu tayyib inna allaha tayyibun laa yuqbalu yàlla ku tey la ku laab la waaye du nangu lu dul lu kon ñi nga xam ne dañoo jël seen alal ji nga xam ne ñoo ko moom dimbalee ko borom xam-xam yi dimbalee ko néew gi doole yi muy taalibe yi yàlla nee na ñetti catégorie yi yarjuuna tijaaratan lan tabuura nee na yaakaar ne commerce boo xam ne amul daanu amul lamb nee naa nag tey ku ubbi place di jaay su doon sa sago mooy lépp loo jaay mu jaay mm-hmm. te su doon sa sago tamit sa bénéfice doon 100 pour san yàlla ne 100 pour cent ñetti nit ñi ñoo koy am kon yàlla ñu ci yàlla boole. Mm-hmm. yéen ñu ne tijaaratan lan tabuura du lamb yàlla waxut lam tabuura waxut laa tabuura waaye def na lan li naf yin wastiqbaali nu xaati ñu ngi dégg yàlla ne lii woo fi mu ujurahu ki nga xamante ni mu ngi jàng alquran ak ki nga xam ne moo ngi jàng alquran di ko jàngale. ak ki nga xamne mo ngi ñu ñoy alquran yalla né ñett yi yaddu na lan tabura waaye bi yoo fi yëgumu man yalla ma len sante ñi liggéey man yalla ma len di fayal sama bop te dina len fay bañ xamne man yalla fay faykat la wa min fadlihi dañuy waxtaan maag yow nga na ma dee ma defal nangam su weer dewee ma fay la nangam mhm. su weer dewee non nga di ma fay sama hak la mhm. mais nga jël leneen dolli ma ci ngir lan liggéey ba rafet bu mu rafet suñu borom loolu mooy wa yaziduhu min fadli mais xoolal yàlla fu mu daanee aaya ba innahu ghafurun shakur nee naa nu muy daanee lay daane innahu moom yàlla mu wax loolu ghafurun day jéggale ma ne bi loo def ci bàkkaar te tayoo ko yàlla jéggal la ndax ghafur la wax borom xam-xam bi loo def ci bàkkaar te tayoo ko soo ko mu jéggal la ndax ghafur la wax yow muy dimbali jullit bu ñàkk loo def ci bàkkaar lu mu rëy rëy soo ko jégaloo yàlla jéggal la ko xam nga lu tax mm-hmm. inna allaha yaghfiru zunuba jamia mm-hmm. waaye daf ne shakuur yàlla mooy ki nga xam ne lii mu leen sant mooy jàng alquran mm-hmm. wala nga di ko jàngale wala nga dimbali yoon alquran yàlla ne man yàlla sant naa la gërëm na kon innahu ghafurun shakuur fa tabaraka waxal ni loolu lañ leen indi lool seen émission bi. fa tabaarakallaahu su ko defee loolu la ñu leen indi lool suñu émission wu suñu daara fa tabaarakallaahu ànd seeg suñu soppe xaj ba Mali Mbay di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ndaw la waaye ndaw luy liggéeyal diine la loolu man mi maa ko a seede mm-hmm. daara laa yor fii ci Tiwaawan maam moom ñoo bokk koñ mm-hmm. waaye lépp loo xamante ni luy dimbalee taalibe la mm-hmm. soo ko laajee taalibe Tiwaawan yi xam nañ ko fa tabaarakallaahu lii muy def bokk na ci fekk la ca daara ja nara kaay lii ngeen di def dafa am njariñ kaay nga yaatal ko ba jullit ñépp jariñu si kooku fa tabaarakallaahu day dugg ca xadis ba yonentu ne man dalla ala xayrin fa lahu mislu ajru faa'ilihi ku fexe ba ni def in uriidu ila al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniibu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu